li nga xam ne mooy final bi lan def en plus en plus nga nekk Liberté 4 lan def. alors li may def mooy ne que euh, xale yi doñ ma laal tey parce que man le fait que ñu ñëw ne man maay parrain euh, seen tournoi football bi pare jël sama sœur Émilie Zalé def ko aussi euh, marraine ñu ñaar ñu ànd te ñoo mës ànd ñu ñaar di liggéey ensemble. loolu dafa di loo xam ne ça me va droit au cœur alors euh, daf ma touché trop parce que man dama nekk ci quartier bi euh, juddoo fi màggee fi au niveau de la commune de Sicap Liberté donc xale yi bu ñu am tourna bu mel nii yu bari nekk fi ñu tànn ma man ne man maay euh, parrain bi tànn Émilie ne mooy marraine bi kooku vraiment dañ ma dañ ma touché donc man li leen mën a fay ëllëg rek mooy ne que bés bu yàlla defoon tey ñun ñu yore mairie commune bi il faut ñu dellu leen jukkal parce que suñu programme axe premier bi si jeunes yi lañ ko jëmale. wax nga léegi axe premier bi mooy si jeunes yi mais jox ngeen bu am solo lan mooy pàcc boobu lan ngeen si xaar. lan mooy pàcc boobu pour lan ñu jox ko importance bu bari parce que tey euh, réussir un jeune de réussir pour réussir du nekk rek jaar école jàng mën nga jaar si sport réussir te ñun gis nañ ko fi gis nañu suñu ay joueurs ay basketteurs yoo xam te dañoo réussir. ba dem di jouer dans le milieu international l'exemple de Sadio Mané est là les basketteurs sont là yoo xam te tey ay salaires yoo xam te ñoo ëpp fonctionnaire yi di gagné fii ñoo ëpp sax salaire ministre yi moo tax sport bi dañoo war a fexe jàpp si ba sport bi nekk industrie warul nekk rek loo xam te dañ koy jëlee comme fooykaay sport léegi dans le monde industrie la donc dafa am liggéey yu bari bari yu mu mën a créer mën a mën tax xale yi am ci avenir pour réussir ñun loolu la ñu bëgg a def boo xam ne tey bu ñu joxoon commune bi ñu fexee commune bi am benn école de sport boo xam ne dinañ ko fi def sport étude incha allah nga si maire bi wante tamit nga def kenn ko xam ne sa a la ngeen def yéen ñaar ngeen nekk paré ak maré lay def donc. non concurrence non du concurrence. Ah. du concurrence. Émilie c'est man ma nekk maire Émilie nekk maire man c'est pareil. am la mu am solo. nañu toog. mairie bi si loxo ki nga xam bu ko yoree jeunes yi dinañ am yaakaar si moom dina mën a def loo xam te jeunes yi dina si teg seen bët ca xaram ne kii yéex nañ ko fi teg waroon na gën a teel a ñëw man xam naa Émilie Émilie xam na ma Émilie man su ma nekkee maire dina ko neex moom bu nekkee maire man dina ma neex moo tax je lui toujours di que man ak moom on est un duo dañoo war a ànd liggéey ensemble parce que xam naa ne wolof Njaay dafa ne mbooloo mooy doole lu kenn mën ñaar moo ko dax man ci toujours di que nañu ànd ensemble du sax ñaar ñun équipe lañu ñi ngay gis ñi ñëpp équipe lañu boo xam te tey buñ ñu joxoon kii ngi ni Omar lii ngi ni ak ñeneen ak ñeneen Abdou Souley les Verts ngi nii Théo parti socialiste ngi nii ak ñeneen on est équipe bu ñu àndee ñun ñëpp teg loxo mairie bi suñu loxo ñu liggéey Sicap ba nit ñi xam ne que liggéey nañu Sicap. si marché lañ ñëw waxuñu moom foofu la waroon tàmbalee marché bi ndax nga ko gisee ndaw yi nga xam ne ñooy joŋante. sa impression un peu si ñoom marché bi. marché bi ndaw yi ndaw yi yéen gis ngeen ay xale lañ yoo xam ne seen at matagul sax vingt ans xale yi amuñu vingt ans mais football bu rafet lañ fi liggéey lañ fi football donc ça veut dire que xale yi tey ku leen jàppale ku leen encadré ëllëg mën nañu nekk de grands footballeurs alors fii Afrique loolu moo ñu manqué parce que tey boo xoolee Sénégal y a un centre bu mel jàmbaar bi nekk Mbour moo fi am ay centre yu mel noonu war na am yu bari aussi bien dans le football dans le basket et autres et autres mën nañu fa ay xale yoo xam te mën nañu compétir au niveau international la nag. am na ku ñu rendre hommage ci final bi kooku kan la am na bi. waaw en fait ku ñu rendre hommage bari na du kenn nit rek on a fait hommage à nos parce que ñi ñi ñi nelaw. si biir euh, quartier bi dañoo bari donc ñoo ñëpp ñoom la ñaan pour que suuf sedd seen kaw te yàlla xëy na àjjana. merci beaucoup monsieur. merci madame.